il va que nit ñi ñu comprendre ne ñun ay commerçant lañu ay dañuy jënd di jaay jënd jaay boobu ñuy def noonu am nañu sañ-sañ bu fekkee ne ñun li ñuy jënd di ko jaay buñ ko jëndee bu ko jaay ko nit ñi ñëw yàq ko am nañu sañ-sañ ne dañuy taxawal li nga xam te ne la ñuy liggéey parce que nag ku sa existence menacée tu es obligé nga seet pexe yoo def pour mën a taxaw sénégalais yi comprendre ne alal ji fi ne ñun ñoo ko moom te suñu alal la te dañ koy liggéey te ay sénégalais la ñuy employé loolu il faut d'abord mu dugg ci bopp sénégalais bi ci topp nag mooy pas des moindres bi nga xamante ne moo ñu gën a soxlaal mooy sécurité xoddiku balaa ngaa lakkale ala kulli xaal mbooloo moo gis noonu lay demee mbooloo moo gis noonu lay demee dina am ñu dem nii ñu am dem nag waaye nag ñun du ñuy du ñuy alkaati du ñuy policier du ñu forcer kenn waaw bu ma doon évaluer daanaka damay wax naan au au moins juróom benn fukk ci téeméer boo gis respecté nañ ko te loolu doy nañu